sunu presse À la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. dalli nag jàmm li gën a fës ci yéenekaay yi tey jilee amu di dal ba ñu nemmeeku au gannaaw da nga xamante ni rek amoom lañ doon ragal ci ay confrontation ak a ki nga xamante bi di réew mi quotidien a dellu siwaat ci dal ba nga xamante ne kii di bu Pastef amu ngi koy woo ay militam gannaaw kàddu ya nga xamante ni yëkkati woon na ko yéenekaay bi di xam ne ne parti di Barthélémy Dias Bougane Gueye Mansour Faye Pape Djibril Fall Assane Diouf ak la nga xamante ni rek am moo di la gi nga xamante ni rek mën naa wane ne moom Barthélémy Dias dafa am ay arme yéene kaay bi di tribune moom di àddu di xam ne Diomaye mu ngi wane boppam ca jamono joojule kii di la nga xamante ni moom moo di a sa gat sa ba mu woote woon yoon ay yéene kaay bi di xam ne kii di njiital Pastef mu ngi woo ay militant ñu ànd ak dal wéy li nga xamante rek amu mu di amal seen campagne électorale ci du justiciable moom la muy xam ne rek mu di kenn du fajal boppam yéene kaay bi di les échos moom di àddu di xam ne daanaka Ousmane Sonko dafa si ginnaaw ci la nga xamante ne rek moom la woote woon ca jamono joojule moom Barthélémy Diaz ak génn di wane boppam moom Ousmane Sonko la muy digal ay

muy xam ne ña nga xamante ni rek ñoom yë yëngu ci wàllu politique ñoo war a xoolaat seen taxawaay ci la nga xamante ni rek moom moo di violence ya ñu nemmeeku ci biir réew mi yéenekaay bi di Le Soleil moom dafa dellu siwaat la nga xamante ne rek moom moo di taxawaayu këru tasukaayu xibaar yi ak la nga xamante ne rek moom moo di message ya nga xamante ne day yëkkati dënn yi wala sax di woote ci la nga xamante ne rek moo jëm ci wàllu violence ñuy woo ña nga xamante ne rek ñoom ñoo jee taskatu xibaar yi ñu wéy te amal liggéey bu am solo jëmale ko rek ci wàllu responsabilité yéenekaay bi di Walf Quotidien moom dafa dellu siwaat la nga xamante ne rek moom moo di mbirum Moustapha Ba ma nga xamante ne moom dañ ko jébbal boroom moom tey jilee ci àllarba ji di xam ne ne coow la nga xamante judd na fi yëpp mbir mi fii lay mujjee yéene kay bi di l'observateur moom si waat ci la nga xamante ni rek moom moo di mbirum ba nga xamante ni boo moywul rek liberté provisoire bañ ko amal dañ koy rek daal di annulé loolu nag ñeel la nga xamante ni rek moom moo di contestation ya ñu nemmeeku gannaaw bañ ko mayee liberté provisoire ak negéeni tey yéene kay bi di libération moom dellu si waat ci marché gré à gré ba ñu nemmeeku ci tabax université bu Tamba ak bu Matam amu dellu si waat delluwaat ci dental BTP royal BTP ak marché bu toll ci 140 milliards ak ci suñu koppar yéenekaay bi di xam ne naka la homme d'affaires malien bi def ba nga xamante ne rek daan ñaari marché ci ñaari société yu bokkul te amul benn expérience ci réew pa Sénégal yéenekaay bi di record moom dafa dellu siwaat ci la nga xamante ne rek moom moo di jongante bi war a dox diggante Sénégal ak Burkina Faso di xam ne boobu la jongante ak lay doon ki nga xamante ne rek moom moo di Pape Thiaw ba tey yéenekaay bi dellu siwaat ci dellu si Crépin Diatta ci la nga xamante ne rek moom la mën a indil équipe nationale bu Sénégal Le carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.